daal leen vidéo bu baax suñ muntaxaa sëriñ baara lay garde xool leen ko rek moo tax suñ muntaxaa mi cëram bi da xaar ba ba jot ci billahi kii mooy lon da la ne xool leen ko bu baax rek day mel ne